bëgg suñu biir xol mbokk téléspectateurs yu 2STV amaan nañu mbégte ñëw ak ci seen émission Marmite du Cœur saison numéro 2 tey ñu koy amalee fi nga xamante ni moom moo yaraax yaraax nag bu ñu ko waxee ngeen xam ni dëkk la bu bari loolu ay potentialité gis ngeen géej gi nga xamante ni moom moo nekk suñu ginnaaw famille waaye ay xale yu góor yoo xamante ni dañoo am loolu jom ñëw di ci daan seen doole waaye nag am na yeneen xale yoo xamante ni ñoom duñ ci géej gi la yëngatu waaye ay usines yoo xamante ne fii ni ci dëkk bi lañ ko implanté ñuy ñëw jóge ci gox yu nekk ni ci Ndakaaru di ñëw ñoom it di ci daan seen doole xamante ne ay potentialité la yoo xamante ne dinañ ko jukki si kanam tuuti incha allah waaye xam ngeen ne léegi bu ñu ci benn gox dañuy bàyyi waa dëkk bi ci seen bopp ñoom ñu wax li nga xamante ne moom mooy seen bëgg-bëgg li nga xamante ne moom mooy seen jafe-jafe ngir mu mën a tokk ci nopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ba mën ci indi ay saafara te nag nga xamante ne moom la ñuy waxtaanal ci présentation yaraax mooy Baye baara di doomu dëkk bi sëñ Bara tey yéen ñu dalal yéen a dalal waa Marmite du Cœur fi nga xamante ne moom mooy yaraax daaw ngeen defoon lu ni mel Baye Bara tey ji bu ñu la laajoon nga présenté ñu yaraax wax ñu tuuti li nga xamante ne moom moo leen fi neex ak sa fan wa lan nga ñuy wax maanaam daanaka bu la neexee nga tuddee ko mooy quartier industrie maanaam géej gi tamit day créer lu bëri mais lépp boo xoolee waa dëkk bi usines yi maanaam dañ leen di metre en rade boo xoolee usines yi fi nekk doomi dëkk bi ñi siy liggéey dañ leen di compter so loolu jaaduwul mooy li olof naan da nga jege xanaa fi ñuy feesee sa amoo si ndawal li ñu amaat fudul yaraax ñiy liggéey si géej gi maanaam ñiy jóge si beneen gox yi di ñëw di liggéey si géej gi dafa bëri sa boo xoolee géej gi ni meloon beede aan bu ma la waxee ni quatre-vingt-cinq quatre-vingt-six bokkoon ni si yi Afrique yi gën a rafet ba nga xam dañ ko see cité man maa ngi rappelé wu loo xam ne yàggul dara bu ma doon dox si suuf si da ngay dégg booy daw suuf ni suuf si sabee di jooy nga xam ne dafa am set mais léegi boo fi jaaree sax da ngay am désolé boo xoolee tamit sunu yaay yi bu ñuy liggéey bu jën amee daanaka boo xoolee bu amul fu ñu ko conserver dañuy obligé tuur ko ndax xool boo xoolee aw tour de mois ay glacières ay booy la ñuy def kon nga xam ni bëgg nañ ay usine de glace yoo xam ne bu jën ñëwee ñu mën koo conserver pour mën koo jaay. ñu gis ni da ngeen am jafe-jafe jàkka ndax dafa mel ni dañu ko daaneel ni nekk ci construction fu mu nekk am ngeen jafe-jafe wàll woowu ndax mën nga ñëwaat ci poñ boobu ngir jeexal. tubarkàlla sama sëriñ dafa mel ne li ñu naan da ngaa luqi sama lanc tey jii boo xoolee yarax gépp muy commune Hann Bel-Air seen benn soxla lañu am ndax dañoo am benn lu dul benn jumaa ji nga xam ne jumaa la boo fi doon ñëw ajjuma li fiy nekk day ëpp lu ëpp maanaam dix mille personnes yoo xam dañ fiy jullisee mais loolu lépp mënutul nekk ndax lan dal bi moo daanu yàlla baax na nag bi mu daanoo maanaam amul kenn ko si gaañu moo tax nag léegi bi eh, experts y ñëwee xool ko daan lii amul waa defaraat dal bi mais lépp lañuy ñuy raser léegi nag loolu ñu ngi ciy tàllal loxo président de la république bi nga xam ne mi ngi taxawal ay jumaa partout si Sénégal sa wax dëgg yàlla feneen foo koy taxawal rek maanaam yaraax ngay romb doog faa dem fii fi mu nekk nii bu ma la wanee góor yi nekk si géej gi ba si maire yi ay bachelier lañ mais finalement da ngay dem ba da ngay désespéré wu finalement fi ngay ñëwee rek mooy jënd ak jaay yokkal ma rek ma wàññil la barki dem rek benn femme mi ngi koy wax. keroog sama rongoñ dafa tuur mi ni yaay ji ñoom ñaar ñëpp nekk si géej gi mu ne ko bu ma xamoon ni sama diplôme yëpp fi may mujjee mooy yokkal ma ma jaay la rek kon jaruloon may teel a yow muy lu doy waar sa bëri na fi ah jërëjëf merci beaucoup Baye Bara mbokk yi dégg témoignage yu am solo yi nga xamante def na ko ci goxam ndax xam nga boo dëkkee ci dëkk mu am ay jafe-jafe yoo xamante euh, dañ koy euh, dund faaw mu xaw la metti moo tax nag ñoom ñu ngi woo nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ngir vraiment ci jafe-jafe yooyu ndax yaraax bu ñu ko jàppale tuuti dina dem ñëpp gis nañu ay potentialité géej gaa ngi fi zone industrielle gaa ngi fi usines yi fii lañ ne gàññe waaye dafa mel a baax kon lii lañ leen andi doon euh, soulever ngir ñu xool lan la ñuy def ba andi ci ay solution kon ñu bàyyi leen ak seen suite Marmite du Cœur ba si kanam incha allah. tuur yi nag ñu ngi ñaan yàlla ñu defaral ñu ko parce que client bu ñu déggee loolu du ñu mën a ñëw te gi wax dëgg yàlla macha allah am na jën fan yi moom macha allah ñu sant yàlla bu baax. Marmite du Cœur moom ñu ngi leen sant leen gërëm wax dëgg yàlla lu baax la ndax di ñaan yàlla mu gën a yokk. ndax biñ ko fi defee ñun ñëpp a demoon yal na leen yàlla defal jàmm télé bi yal na dund ba doon ay télé télé télé loolu lañ leen di ñaanal ci barki Rasulullah bu ñu yàqalee suñu géej gi nag dañuy sonal dañuy lor ndax ñun amuñu fudul géej gi fi la ñu yaakaar di wër naan géej gi ndox mi baaxul ak fii ak bëgg ñoo dàqal suñuy clients yi te ñun fii def nañ fi ay presque ay 35 ans ñi ay 40 ans ñu ngi fi di liggéey te mosuñoo dégg benn jën bu fi feebar nit ku jóg fii ngay ñëw di ut kon nag léegi buñ ñu ko yàqal Marmite du Cœur nag maa ngi leen di sant di leen gërëm Marmite du Cœur moom moo génne xiif ci Sénégal ki ko njëkka indi daal tas de guerre kenn xiifatul dañuy yàkkamti rek Marmite du Cœur yëpp kenn ku ne ngàbb sa pot ak sa bool dem ñu yekkal ba nga lekk ba suur yóbbul sa njaboot foree jàmm rek lañ ci xam te ñu ko fi indi yàlla leen yàlla may jàmm 2S yàlla na gën a yokku doon ay milliards yi milliards yi télé ànd ak wér ak wérale yéen ña fay liggéey yàlla yóbbu leen fu gën a kawe ci barke Seydina Mohamed. ravi de vous retrouver une fois n'est pas coutume cette cérémonie exceptionnelle de remise de dons se fera de manière exceptionnelle aussi euh, en langue française nous sommes avec le directeur du groupe Kirène monsieur Alcantara vous euh, vous êtes signalé d'une très belle manière avec euh, tout ce pack de l'eau de l'eau euh, l'eau L U Euh, plus euh, des jus, du lait, euh, pas mal de produits que vous avez apportés à l'équipe de la Marmite du Cœur. Qu'est-ce qui a motivé ce, cet acte-là, M. Alcantara ben, Déjà, tout d'abord, euh, merci de nous, de nous recevoir. C'est bien sûr euh, nos, nos, amis de la Marmite du Cœur qui font là un très beau geste depuis combien d'années et qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur parce que le geste est noble. Ben, C'est tout simplement Mustafa et Alassane, hein, ceux qui, qui, font la promotion de, des du cœur, et bien sûr notre partenaire de toujours, la Sonatel avec Orange, qui, qui nous, qui nous embarque dans cette histoire-là, et qui est une très très belle aventure que nous avons commencé et que dès à présent nous sommes fiers de dire que nous allons continuer bien sûr pour les années à venir. Cette fois-ci nous venons de façon forte, hein, comme vous le voyez avec tous les lots, pour être présents sur tous les événements et puis pour euh, euh, demander, bien sûr, au-delà de nous, hein, ce n'est pas que ce n'est pas que nos sociétés qui sont ici concernées, c'est toutes les bonnes volontés, et, et, y compris les autres sociétés, des autres confrères industriels, que nous demandons de, de, si je puis porter la voix en tout cas, euh, de nous rejoindre dans cette belle initiative qui la marmite du cœur. Cette année, on a apporté une touche nouvelle avec euh, l'intégration de notre partenaire Kiren, qui est un partenaire également le Sénégal pendant les moments forts de générosité et de communion, notamment les événements religieux avec euh, Kiren. Euh, donc voilà, c'est une continuité pour nous. On s'est dit à la dixième édition de la marmite, pourquoi pas faire une chose nouvelle. Aujourd'hui, intégrer des partenaires qui souhaitent peut-être de loin veulent intégrer la marmite depuis longtemps, peut-être qu'ils n'ont pas trop cette facilité que pour la marmite, d'intégrer un partenaire. Ça ferait un tripartite, si on peut le dire comme ça. Orange, depuis 10 ans, nous accompagne. ce qui est le geste à saluer, c'est l'ouverture de cette brèche que euh, Orange a, a, bien voulu tendre à, au groupe Kirel. C'est énorme. Et je pense que c'est à saluer en se disant que euh, c'est des entreprises citoyennes. Ils ont compris c'est quoi la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est des, des, sociétés qui sont dans un pays, donc qui œuvrent dans un pays, qui font des bénéfices et ils reprennent ces bénéfices-là pour le redonner à la population. Je pense que c'est très important. Ça fait quand même 10 ans qu'on qu est là, qu'on chemine avec eux. Donc, euh... Euh, aujourd'hui, euh, l'innovation, c'était d'ouvrir aujourd'hui pour que d'autres sponsors puissent euh, venir aider, puissent venir aussi faire un don, faire un, tu se, montrer. Quoi. c'est quelque chose de louable. Euh, fait 10 ans qu'on est là. C'est que ça a été On a, Orange, c'est notre sponsor officiel. Maintenant, aujourd'hui, avoir Kiren aussi nous, met dans un autre standing. Aujourd'hui, avoir Kiren aussi nous, nous comme parce qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent euh, consommer ces, euh, produits-là. Donc euh, aujourd'hui, on, aujourd on, a du saut, on a du bissap, on a beaucoup de produits que les enfants, que les Sénégalais viennent consommer. Aujourd'hui, ça nous fait un, un peu plus parce qu'on cuisine, on, donne à chaud et derrière, euh, si on propose notre dessert aussi, pourquoi pas. Alassane Ndour sama xarit la sama wóolare la ak Serigne Bara sama càmmin la sama wóolare la donc dama ñoon participer li participation si lii pour euh, defal mbooloo mi ak si koor gi. koor moom loo si munti def lu baax rek yàlla moo la koy fay donc euh, def lu baax moom du doy waaw dañuy woote mbooloo mi ñoom ñëpp ñu ñëw def lu mel nii nekk si ginnaaw euh, xaritu. Alassane Alassane Ndour ak Serigne Bara mi waral bés bi tey kër goo dem boo fa amul ndey am nga fa bay nañu delloo sa xel te muslu ci seytaane coow li bëri na lool ci wàllum diine di ci wàllum aada di ci wàllum politique

fi wọ́n. Oh. ànd ak jullit nañu ànd ak dal te kenn bañ a yëngu ñun ci jàmm ak teral dong lañu xam kon yàlla na yàlla doon jàmm ak sa Seydou Sow mbokk yi tey journée bu extraordinaire la ñu dund fi nga xamante ne moom mooy yaraax ndax xam ngeen ni dañoo am gan goo xamante dafa mot gan muy waa groupe Kirène gis ngeen acte nga xamante daal nañ koy posé tey ci journée bi nga xamante ni nañ ko ak waa yaraax yëpp mu nekk mbir moo xamante askanu yaraax ci seen bopp ñoom it daal dinañ koy rafetlu ndax gis nañ seen bopp ci acte yooyee waa groupe Kirène posé waaye it acte a a soxal askan wi wax nañu géej gi sànq wax nañ ci li nga xamante ni moom mooy zone industrielle waaye du ñàkk bañ a wax ci li nga xamante ne mooy pollution bi baie de Hann gis ngeen sànq image ñu leen woon euh, li nga xam ne moom mooy géej gi nu mu mel ak femmes yi nga xamante ni dañ fay yëngatu leenañ sax day dem ba seen activité dafa menacé ndax am na ñenn ñoo xam ne dañoo jàpp ni géej gi dafa tilim kon duñ fa jëndee jën ñu toog nag kenn koo xamante ne xelam ñoo nekk ci mairie bu euh, Dakar soxna lu ñu wax ci li nga xam ne moom mooy pollution bi gis nga li nga xamante ne moom la euh, sunu papa yi di dund Karl Marx mi ngi ko doon wax nee na la religion et l'opium du peuple ñoom amatuñu léegi fu ñuy mën a jaamoo borom bi nu mu fa waree ndax seen jumaa ji dafa daanu ay zeng la ñu daaj fii ngir dafa mën a jullijee loolu leen noonu yëpp nan ngeen ko gisee yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk fii ci gox bi. ñaari nit kenn ki nekk sportif de haut niveau kenn ki nekk acteur culturel de premier plan ñu am xalaat xalaat bi nekk jëf mu nekk marmite du cœur yàlla def mu wasaaroo ci Sénégal yëpp nekk jëf ju rafet ñu leen di sant di ñaan yàlla seen taxawaay gën a dëgër yaraax nag Baie de Hann bu ñu ko waxee ni xelu nit ñi day dem ci pollution xelu nit ñi day dem ci quartier spontané xelu nit ñi day dem ci embouteillage xelu nit ñi day dem ci risque industriel mais loolu yëpp pas-pasu communauté bi dëkk fii mën na ko faj pas-pasu communauté bi moo tax gouvernement du Sénégal jël programme de la dépollution de la Baie de Hann lu toll ak fanweeri milliards ak ñett liggéey mi nag du ñuy yuréet day def toq-toq ñu ngi redresser mbedd yi ñu ngi suul canalisation ñu ngi defaraat dëkk bi loolu yëpp ay pàcc la ci programme de restructuration de du village de Hann bi nga xam ni pàcc la aussi ci programme global de la baie de Hann mosquée yi ñu laal ak kër yi ñu laal yooyu yëpp lu ñu war a defaraat la ñun ñu ngi ñaan suñu xar yi ñëw nga xam ni ils ont la générosité et la solidarité en bandoulière ñu jàppale faamu yaraax ñu jàppale jeunes yaraax ñu jàppale kilifa diine yaraax ba lépp lu ñu mën ci defar li ñu def ko. mébét dara mu ant loolu ndimbali suñu borom la sa ñun li nga xam ni moom la ñu gëm mooy la addis ba waxoon rek ubbul watana na iman bëgg sa réew si jaamu yàlla la bokk amuñu fudul yaraax. marmite di kër nag maanaam tur wi dafa nuroog jëf ji ndax sëñ Cheikh Mbacke da koy faral di wax naan nit ay waxam ak jëfam bu doonee benn jàppal kooku nit la waaye nit ay jëfam ak waxam bu doonul benn wàccal kooku du nit sa marmite di kër dafa jëf-jëf joo xam ne fi mu nekk nii waxuma la léegi marmite di kër la waaye Sénégal ak adduna bi ba Genève ba Amérique at Chicago gis naa fa ñuy def marmite di kër si fan lañ ko royee si maanaam xanaa Moustapha ak Alsandour kon ngeen xam ni la Baye Moussa Ka waxoon dalee na dal Baye Moussa Ka da doon wax ñoo teggi cër bu duun ndax fàll rew nag du nuroog dogu naajo kon Alsaan ak mustapha yéen a teggi cër bu duun ndaxte lii kat ngeen sos ba ku ne di ci roy sunu borom yàlla na ko def seen téere jëf sa rafet nañ ci njort ndax sallallahu salama ko wax ñu ngi soog a door li nga xamante ne moom mooy euh, weeru koor bi détermination bu ñu gisoon mun naa ne ci première saison bi donte ni nekk ñu fi woon ba léegi moom la ñu fiy gisaat lan moo waral mbir mu ni mel euh, alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim euh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp saa su ne mbégte lay doon fekk si famille Marmite mi Cœur nekk si liggéey bi mu nekk loo xam te ne dañ koy yàqamti fekk ji suñuy frère suñuy yaay ñu nekk benn famille booloo di jàppalante ba di ñaan yàlla duggee ko bisimilah rahmaani rahim yeggali ko alhamdulilah rabil alamin euh, lu woyof la nekk suñu saa su ne ndax dañuy jàppalante ñun ñëpp suñu yaay ñoo fi nekk suñu ay mag suñu ay euh, suñuy rakk. ñun ñëpp dañuy jàppalante ngir liggéey bi eh, jaar yoon comme liñ ko bëggee. waaw Marmite Cœur dafa nekk loo xamante ni soo xol bu rafetul doo si mën a nekk doo si mun bokk parce que fu nekk ngay dem ñu nekk ngay dajeel léeg-léeg di nga dem foo xamante ni sax da fay fekk ay nit ñoo xamante ni ñu nekk daal lañuy ñëwee mais si looy dugg nga dugg si ak xol bu rafet fii fay ñu kenn dañoo ñëw volontaire ñëw pour liggéey. liggéeyal suñu bopp liggéeyal yàlla liggéeyal luñu Alassane liggéeyal luñu Tafa liggéeyal luñu kenn suñu bopp la ñuy liggéeyal ndax dañoo bàyyi suñu liggéey ñëw fii te ku bàyyi sa liggéey pour ñëw liggéeyal yàlla da ngay def loo xamante ni loolu la yàlla bëgg. daataa nag ñuy jox kàddu gi ki nga xamante ne moom mooy imam moom it mu wax tuuti ci Marmite du Cœur daal di ñu xanaa rek ñu daal di ne fii la ñuy ndarkeppe li nga xamante ne moom mooy jotaay bi tey nekkoon benn édition boo xamante ne c'était spécial ndax am na ay gan yoo xamante ne dugg si nañ ci li nga xamante moom mooy marmite du cœur fas yéene nañu gunge ndax moom la Alassane ak Moustapha di def dafa nekk geste bu noble kon ñoom faaw ñu jàpp ci dana am ñeneen yoo xamante ne bu soobee yàlla dinañ dugg ñoom it ñu leen gis incha au cours euh, de ce mois de ramadan du ñàkk Alassane dina ci ñëwaat ci yeneen i émission kon jàpp leen ni subaak ñu jógee tey ji fi nga xamante ne moom mooy yaraax ñu ngi jubali kon wala wutali fi nga xamante ne moom mooy jaxaay kon dañuy daal di jox kàddu gi fi nga xamante ne euh, moom mooy imaam imaam ginnaaw bu sàndee kàddu ci Marmite du Cœur ñu bàyyi ko mu tëj euh, jotaay bi ak ay ñaan. di sant nag Alassane Ndour ak Moustapha yàgg nañu gis Marmite du te loolu itam damay wax ne léegi bi ngeen koy def nit ñi xamuñu woon lu mu doon lu mu doon mm. waaye léegi ñu àndul ak yéen sax. koñ boo gis ñu ngi fay tàgg euh, togg ay def ay cin ay kii di joxe café ay kii di ma def marmite di kër kon yon bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku sos lu baax ku ko toppandoo rek daw nga ci am tiyaaba ak tiyaaba ki nga xam ne moo la ci toppandoo kon lii lu rafet la macha allah ñu ngi leen ci ñaanal yàlla yàlla na leen ci yàlla dëgëral. ñu ngi lancé appel di tàllal suñu loxo jullit yëpp képp koo xam ne xëy na. li ñu li suñu appel bi danay jaar ci télé nga gis ko ñu ngi lay ñu ngi lay tàllal loxo ci néegu yàlla bi kenn ku nekk danga am kër am ñaari kër ba ñett waaye yoon moom ci quartier bi benn néeg la fa am dañuy néegu yàlla bi kenn ku nekk kër nga am moom nag mu am néeg <laughs> kon ñu ngi ñaan képp koo xam ne rek euh, boroom kër nga comme ni ngeen ko def nga tabbal ci sa loxo ngas jullit yi kat tumuranke nañ fi tumuranke nañ fi fii ci koñ bi amatuñ fu ñu jullee kon ñu jàng fatiha salaatul fatiha ayatal kursi alam nashrah lixlaas falaq ak naas salaatu ala nabi ñaan yàlla yàlla yàlla kattanal leen kattanal mboolem jullit bi jaay séddu du ji